loolu lañ gis ci moom kon nag yàlla na yàgg ci kanam njaboot gi naal yi mu am yàlla na ko sunu borom sottal te naal bi nu ci gën a bëgg mooy bi nga xam ne sëriñ Touba bi sëñ Mbàkke bu sa waxee daf ne woon bi fi sëñ bi jógee ñetti naal la fi ba muy aj ga muy jumaay Touba muy université bi kon nag université boobu yàlla na àggee ci sa ci loxoom lim ci mébét itam te mooy mu doon loo xam ne day yóbbu xam-xam xam-xam ca Touba da koy yóbbu ba fu ñu tuddati yeneen dëkk yi tudd ko loolu yàlla na ko sunu borom dogal tam fekke ko tan ànd ko ak moom ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant jullit yëpp itam ndax ku ñëw ci barab bi danga xam ne jullit yëpp ko bëgg te wane nañ ko itam kon jullit yooyu mat nañ ci sant waaye rawatina nag taalibe yi taalibe yi itam mat nañoo sant bu baax nii ñu def bàyyi seen lépp bàyyi seen li ñu am jël seen alal seen doole seen man-man seen kattan di ko def ci sëñ bi ngir wane ko seen mbégte ci moom ñooñu itam mat nañoo gërëmal te loolu nag ku leen di gërëm faaw nga tudd ki leen jiite fii ci ndakaaru di sëñ Mbàkke yu fay mi ak ñi ko àndal ñëpp taxawaay bu am solo la ci alalam ci dooleem ci wax ñaqam ci waxam waaye sant itam mboole sëñ bi ñu ngi lay sàkku ci yow nga ñaanalal nu ñi ñu bokkal jumaa ji fii ñi ñiy setal ñiy bale ñiy organiser ñiy defal sàpp yi fii ñiy taxaw kenn ku ci nekk boo ko fekkoon fa muy taxaw di fa liggéey da ngay xam ne sëñ Tuubaa sëñ bi rekk ko ko jaral waaye alal sax mënut tax muy defe defee noona kon nag ñooñu faaw ñu dégtal la ko lépp lu fi mat def ñu ngi koy def te ñi koy def ci yéene lañ koy defee ak pas-pas te duñ ca laaj dara kon nag loolu Mbàkke ñu ngi la koy seereel jëwriñ ji ak ñi mu àndal ñëpp ñi ngi sàkku daal nga ñaanal leen ah, ba lii ñuy def sëriñ bi nangu ko ñu am ci tawféexi sëriñ bi loolu mooy taxaw kàddu yi yi nga xam ne mënuñ ko woon a ñàkk a wax di sant itam autorité yi nga xam ne loolu xëy na du suñu wàll sax waaye nag jàppale nañ ñi doon taxaw ba lii mën a am ñoom itam kon ñu sant leen bu baax gërëm leen wa awlina ya rabbana xusna alxitaam mamaati wa gadan yowma alqiyaam bi jaayi xayri man safa al amrada wa wahaba almarguba wal aqrada muhammadin tabibin alhumaami almubri il amradi wal asqaami wa salliyan alayhi summa sallima wa alihi maha ashaabi alkurama maa aflaha almashgulu bidduaai wa oofiya almaridu bistisqaai assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi eh, ñu ngi àndandoog yéen ci liggéey bi rek xam nga ni jumaa jaa ngi waaj gi door def naa sañ Xaadim waxtaan na ba noppi léegi nag li ci des xam naa ni mooy ñu noddu bu ñu noddee ba noppi nag daal di jëm nag ci li nga xam ne mooy xutba bi eh, sëñ Bas génn daal di tàmbali xutbaam te xam nga sëñ Bas bu tàmbalee xutba bi daanaka kenn dootu am kàddu dañuy daal di jëm ci li nga xam ne rek eh, su ko defee sëñ Bass bu tàmbalee xutba bi daanaka kenn dootu am kàddu dañuy daal di jëm ci li nga xam ne rek euh, su ko defee dootu am kàddu dañuy daal di jëm ci li nga xam ne rek euh, su ko defee Euh, Masalikul Jinaan euh, sëñ Xaadim euh, dootu am kàddu dañuy daal di jëm ci li nga xam ne rek su ko defee Masalikul Jinaan sëñ Xaadim moo doon def noonu waxtaan euh, waxtaan wu am solo nag woo xamee ni bàyyiloo na xel nit ñi euh, Masalikul Jinaan euh, sëñ Xaadim loo moo doon def noonu waxtaan waxtaan wu am solo nag woo xamee ni bàyyiloo na xel nit ñi lil muntaxaab inni awoosu bililaa muslootina min kullilaa ibliis ma ñaaj rahmatulaa moo tax ba yoonam dëng naa inni awoosu bililaa muslootina min kullilaa ibliis ma ñaaj rahmatulaa moo tax ba yoonam dëng naa inni a'uuzu bil ilaah muslootina min kulli laab iblis ma ñaaj rahmatulaah moo tax ba yoonam dëng naa bismillaahi lay dale waaju ca doore dootale na ngeen xerawlu wax jile may bëgga wax ci seyxu naa mawut kayit ta soosi daa takañ fi waajarey bidaa dundal sunas muhammada waaju ko weddi sanku naa kayit ta daa takañ fi waajarey bidaa dundal sunas muhammada waaji ko weddi sanku koo gaa di say xil mu taxaa sirtul qadiimi شيخنا كوكادي زيخ المنتغى سبت القديم زود غاب موزل مودن السغاب بامبا كودب مرسدنا dem nga ba Marwa tak Safa añ nga siyaar nga Mustafa doonay xadimul Mustafa yaay saafaras qulubuna dem nga bamar wa tak saba aj nga ziyaar nga mustafa donay xadimul mustafa yaay saafaras qulubuna lil muntaxa awsil suroor yow la ñu doon junj ca biir yaay jante gindi kureet yaay xalifa mbégteeg munaab mbooleem xalifa ya fi daa sàmm si yoonu ahmada yow la ñu jébbal seeni ndaa moo tax manaa la asxinaa bamba di njiital latqiyaa yanaam ya yem na lan biyaa tiisam ya surjuy lawliyaa nattu yi gabong ya metti naa bamba di njiital latqiyaa yanaam yem na lan biyaa tiisam ya surjuy lawliyaa nattu yi gabong ya galwaaya jambatoo ba tiis romb nga réewi kable bees del tuxal balaaku tiis dootuñu gis dara ñanaa i jaru jooyi tegi laa bind bilwi moo nag tubaab ya naa wala te xeg nitam ñi yàgg moo fi yaxal lu tax ma naab murid du mas jahannama ca bis ba xéer ya ñépp naa ku nuy fegal xasaabana moonu defal ngeen gi xiraa ñuy naan ca déegi kawsara moonu jamal jaw falfara saadatan baal jana tànn nga ruuya noon bala yow ma alastu aw wala yaa nuy woyol indal mala li leela def safiina yow mi danay xayrul wara yaa ni musal ci sa wara yaa nu kawel bilam tira ala rijaali rabbina yow mi tafal ci mustafa defal ci muntaxa sifa hatta yanaala mastaba muritina busra lana yow mi yaxal tawil lana dellu ca teg say lana far ko dëxañ ci seyxuna almuntaxa imaamana yow miñ defal sa tuqi daa yam ak dereeti suhadaa seex muntaxa fegal ko daa may ko si faasu dóorina maa tàmbalee woon basmala yéggali naa ci hamdala ma sant yàlla sant la way wi ma def rabiuna man mi Muhammadu Lamin may may ngërëm yu dootu neen te may ma ak yokku amin molor ci àdduna man mi Muhammadu Lamin may may ngërëm yu dootu neen te may ma ak yokku amin molor ci àdduna wakiilu naa ci rabbana salman ala sayidina salla alay rabbuna kama stafa taxawluna wakiluna ci rabbana salman ala sayidina salla alay rabbuna kama stafa taxawluna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal lil muntaxaab inni awuzu bilila muslootina min kullila iblis ma ñaaj rahmatula moo tax ba yoonam dëng na inni awuzu bilila jaamu suñ borom ci ci li nga xam ne am na loola nag suñ borom xamal nañu ne nga xam ne moonu sos jëleenu ci kenn nit day ni nga xam ne ni la defee ñu wuute am na kàttanug itam mënoonoo mën mënoon noo def ñu nekk ñenn nit képp mën noo def itam ñu nekk ñenn ñoo xam ñu wax ñooy bokk aw melokaan ñooy bokk ay waaye nag loolu defu ko ndax dafa bëgg dafa am loo xam ne bëgg na ko ci doomu aadama yi tey dimbalante tey jàppalante te loolu kat bu fekkee ne xool sa morom loola du tax nga am soxla dëgg-dëgg ni nga war a amee soxla ci sa morom waaye boo gisee sa morom wuuteeg yow ci ma melokaan wuuteeg yow ci ci ci ci ay wax da danga am it ci jéem a xam kii moom li lan moo nekk ci moom waaye bu loolu amutoon kenn ku ne mën na nga jàpp nga xam ne ni nga war a jàppee sa morom yi doole dëgg-dëgg borom bind nañu ñu doon ay ñu wuute lool ci ay melokaan ci jëmm ak ci aw melokaan ak ci ay wax loola lim li tax mu def ko ñu ak ñoom lan lañ wut ñoom ci kàttan ak lan lañ wut ak ci xam-xam ak lan lañ wute ci moom ci ay jàpp ndal yoo xam ne am nañ ko te ñii amuñ ko loolee nag xam nañ ne mu neesu koo am mukk mun munta am lu dul ne dañoo jéem a xamante jéem a ubbikoonte ci suñ diggante jéem a nekk ñu woyof ñu ma woyof lu ci suñ ñeneen yi ci des ngir mën a jariñu ci ñoom loola nag moo tax suñ borom xamal nu ñe maa leen bind def leen ngeen di ay góor ak jigéen def leen itam ngeen ay ngeen nekk ay ay xeet jiir ak xeet yu wuute loola nag lim ci jublu mooy ngir ñu xamante xam nañ ne niñ ko waxe woon léegi bu fekkoon ne ñun ñëpp menn wenn jëm jënd jëm rek lañ yor jenn wax rek la ñuy wax mën nañoo bañ a amante itte ci suñ diggante waaye bu ñu xamee ne am nañ ñoo xam ne bokku ñoo jëm am nañ ñoo xam ne bokku ñoom melokaan am nañ ñoo xam ne bokku bokkunu ak ñoom lu ñuy wax te xam nañ ne suñu borom dafa bind doomu aadama ci mu doon koo xam ne ku dañ kumpa la loola nag day tax mu jéem a xam yii nga xam ne wuti nañ moom lan moo nekk ci ñoom ak lan moo nekk ci ñun loolee mooy tax ba dimbalante mën a am loola mooy tax jàppalante mën a am ndax kenn ku ne ci ngay xamee li ko ma la koy mën ak la koy mënul ak la koy ak la kenn amul waaye nag bi nga xamee ne suñu borom xam na ne li tax mu bindu mooy ñu jàppante dimbalante tey tey tey yëgante loolu tax na bay ba mu jàppante googee ak dimbalante gee ak yëgante googee boo nu rek ñu def ko ci ni mu neexee waaye da ko da ko dañoo jox ay condition ci buñ koy def nan lañ koy defee loola mooy buñ demee bay dimbalante nañ dimbalante ci lu baax ak loo xam ne lu lu ñuy gën a dëgëral ci suñu pas-pas lay doon waaye lépp loo xam ne dañuy dañuy dañuy jëmee ci loro dañuy buñ dimbalante ci mukk ci loo xam ne ak lorante lay jur wala loo xam ne ak noonu lay jur suñ diggante loolu nag bi nga xamee ne suñu borom xamal nañu kon ne bind naa leen ngeen di ay xeet yu wuute waaye na ngeen xam ne fenn ngeen jóge nangeen xam ne itam wuute googee tax na kenn ku ne war a mën a am itte ci moroomam ngir xam la nekk ca moom ngir man koo jariñoo jariñoo googee nag da koo tënk ci wax ne bu ñu bay di ko jariñoo itam na doon ndimbalante gi ak jàppante ga na tegu ci kaw lu baax rek ak lépp ak lépp loo xam ne moo ñu yokk ñu gën a jàpp ci li nga xam ne moom la suñu borom sant ginnaaw loolu nag suñu borom xamal nu ne yéen ñoo ñu nga xam ne yéen laa bind ngeen jóge ci kenn nit wuute nii ngeen wuute ci kàttan ak ci man-man ak ci xam-xam bu ngeen wuute itam ci aw ci ay wax loole na ngeen xam ne bu bu ta bu kenn jàpp ne melokaanam moom mel tax na mu gën keneen wala la dekk ci moom tax na mu gën keneen ka ci des li nga xam ne mooy tax ñu mën a gënante mi ngi aju ci kaw rek nan la ñuy taxawee ci li nga xam ne moom la suñ borom sant loola mooy fa la fa la gënante ga di amee loolu nag mooy fi suñu borom di wax ne inna akramakum indallahi atqaakum taxawee ci li nga xam ne moom la suñ borom sant loola mooy fala la fa la gënante ga di amee loolu nag mooy fi suñ di wax ne inna akramakum indallahi atqaakum koo xam ne kii rek ñoo bokk réew mi yal ko fi yàlla yàggal te mu wér te nekk li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko te ñu ànd kook moom ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñëpp di woo ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa

Bamba Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin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 alam naj'al lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqta'ama al-'aqabata wa maa adraaka ma al-'aqaba fakku raqaba aw it'aamun fi yawmin dhi masghabatin yatiiman dha maqrabatin aw miskiinan dha matraba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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. mooy eh, julli gi julli nañ ba pare eh, àndandoo ko yéen fii ci Masaalikul Jinaan Euh, nga xam ne sëriñ Basiiru Lo euh, def xutbaam bu am solo boobu nga xam ne xam ngeen ni Cheikhul Khadim lii rek la daan digle lii la bëggoon itam lii mooy ndamam mooy am ay sëtam yoo xamee ni tabaarakallaahu dañuy ñëw Euh, mana a euh, tegtal nit ñi yoon te foo leen fekkee rek gis leen seen seen seen ja seen mbir day demee noonu loolu moo waral tabaarakallahu euh, bayaan yi dégg ngeen ko sëñ xaadim def ko sëñ xaadim loo rakk ji bi ñu noppee sëñ Basiiru loo jël kàddu gi moom itam def li nga xam ne Euh, mooy nodd bi ñu noddee sëñ Moustapha Ndiaye mi nga xam ne tabaarakallaahu bilaal euh, moo fi nodd boo ko déggee sam xel day daal di dem rek màkkatal mu karam day dem madinatul munawara waaw Moustapha yal na yàlla dolli ko nam te xam ngeen ni moom ku sëñ Touba préparé la ndax ay way juram dañoo bokk ci njabootu Serigne tubaa euh, Cheikh Mahmoud Mourtala itam Euh, defal ko lim ko defal moo waral sëñ Tuubaa préparé ne léppam ndax dégg nga noddukat boobu boo ko déggee da ngay defee ni Arabie Saoudite yi lañ ko jëlee muy Moustapha Ndiaye Bilal mu def noddu yi bi ñu nuppee nag ñu ñëw ci li nga xam ni mooy xutba bi xutba bi nag euh, dégg nga sëriñ bi wax ko ci arab ba nuppi tekkiwaat ko ci wolof ci euh, doomu aadama ni ko yàlla bindee nga xam ne yàlla moo sàkk jaam ni def leen ni mu leen def mais def gi mu leen def ni mu leen def wax na li tax mu def leen ni mu leen def ndax yàlla keroog ba mu ne alastu bi rabbikum ay ruu ay ruu rek la woon euh, dégg nga sëriñ bi leeral na ko bu ko neexoon ca ruu yooyee noonu la leen di bàyyee rek nga xam ne ñooy bokk même même objectif bu kenn yëkkatee lépp jógandoo bu bu ñu tegee lépp wàccandoo waaye sëriñ bi dégg ngeen mu ko waxee nee na ci yam noonu leen yàlla bi ne xam ñoo bokk fu ñu jógee da leen a ndax respectante am yooyu nag njàngat mu yaatoo ngi ci ndax soo ko jàngatee da xam ni li sëriñ sëriñ bi eh, dafa am solo lool parce que doomu aadama bu leen yàlla deful woon noonu kenn du ci respecté sa morom loolu nag dafay am solo defe naa ci ay sëñ bi day ñaan defe naa day day delluwaat ci waxtaan day delluwaat ci waxtaan waa maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin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 mu wax ak yéen ni ñu war a siyaar bi ñu déglu jëwriñ mbàkk yu mu wax ak yéen ni ñu war a siyaar bi ñoo ngi salaamaaleykum alo alo ñoo ngi ñoo ngi wax mbokku taalibe yi ñi bëgg a siyaar ñépp déglu ñoo ngi wax mbokku taalibe yi ñi bëgg siyaar waaw euh, kon ma ngi noonu euh, tabaarakallaahu alaaji Asan euh, nga waxtaan waa ngi noonu xutba baa ngi noonu am na solo xam naa ni dañoo ne ci wàllu ziar bi parce que ñi ñi ñëw te gisuñu sëriñ bi day metti xam nga la Cheikh Ibra Fall waxoon rek ni mbonaat mbonaat du nampal doom da koy xool rek mu suur waaw maam Ibrahima njaay nee na Cheikh Ibra Fall dafa tawat nee na nee na nee na yabal nu ca yabal nu ca sëñ Touba nee na sëñ Touba ni kaay woo woo woo Cheikh Fall ak moom ni leen kaay leen seetali ma sëñ Cheikh Ibra nee na ba ñu yeggee rek Cheikh Ibra xool leen rek jóg toog. daal leen ndax moos mbonaat du nàmpal day xool doomam rek mu suur moo tax nag nit ñi ñoo xam naa ne ñu ñu organiser ziar bi ngir bu ñu paree ci kanamu jumaa ji fa lañ def benn kaas boo xam ne dañ ko def veer fa la ñuy ñëw nit ñi mën a xool sëñ bi saafonteeg moom xam nga xam nga jaayante <laughs> mën a yeesalaat lay lay doon ndax xool sa kilifa dafa am lu lay jox alaaji Asan dafa am lu mu lay jox alaaj njaga comme ni nga ko waxee waaye ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala xam ne génn nañ si léegi yàlla na bokk si mu nangu te am nañ si yaakaar tam ndax fa tabarakallahu li nga xamante ni sunna wone julli gi lépp tegu na si sunna wax macha allah macha allah eh, dégg nga nodd gi Moustapha gi Moustapha beneen affaire la <laughs> ko neex lay génn moom xam nga waaw dafa bari dafa bari ay façon wax fa dëgg yàlla borom bi subhanahu wa taala am na lu mu ko si may mhm. waaye yaa ngi sëñ Muntaqa eh, yal na yàlla yàggal wér yàggal ko fi te may ko wér bi Moustapha di noddu am na fu mu yegg nga gis mu ngi yëngal. macha allah bopp bi xam nga Moustapha. Mhm. sëñ Touba maanaam sëñ Touba moo garaaw. est-ce que mhm. ma ngi jànge ci yeneen kuréeli lislaam mhm. foofa la daan bayaane. yàlla dogal ñu jox ko offense Bodian. ca Casamance moo ko doon jàngal ca Bignona moo ko doon jàngal. offense Bodian sëñ Mourtala moo ko moo ko ko dénkoon. Ah, baax na maanaam. alali sëñ Tuubaa la ci sëñ Tuubaa dafa dellu sa mooy juróom gu góor mhm. taalibi sëriñ Tuubaa la sëñ Murtala ci sëñ Murtala la nekk kon moom fu mu jóge la dellu si rek bi jumaa ji ubbee rek ci lañ ci lañ ko indi waaye bu noddee da ngay defe ni madinatul munawwara lañ nekk waaw ndax sëñ Touba léppam sunna la radiyallahu anhu ndax moom moo ko wax mhm. nee na rajaa u jannat jannatin bila taaati li sunnatil maahi xururun yaati moo ko wax cheikhul xadim radiyallahu anhu nee na képp koo xamante ni da bëgg dugg aljana mhm. te sa tànk tegoo ko si sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. wala ku la ko déey te jaarloow la si sunna nee na mu ngi lay ndax ndax moom léppam sunna la moom sëñ Touba te li ma ci gën xam nga fii Ndakaaru la dëkk bi du bokk ak gis nga. xool ju tedd ji ñëw daw dara xew nga gis rek bët mais lan lay lan lay jural borom bi subhanahu nga am noo doxale ak moom hmm. ku borom bi subhanahu wa nga bëgg ko hmm. sopp wa sallam te ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel wa ne moom teg ñi ko fi représenté bi mu hmm. sama badar muy metti ba tey ba nga ñëw aj si màkk def xat fatxu màkk dandoo ngeen samay soppe mooy ñi ñëw sama gannaaw du ñu ma gis du ku ne pare na joxe njabootam ngir teg ma tey ñii di daaw seen alal lañ joxe ñi gàddu seen njaboot andaale ngir teg seen muntaqa xam naa loolu mooy naqari ñu bari mooy lu tax nit di fëlëx fëlëxi lu tax nit ñi joxe nangam nangam loolu xam nga dina ko jàngale xam na ma nga tàmbalee ca kera bi Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñëwee nekkee Màkka. Mm. seen baay yaa am alal mm. yonent bi convaincre leen seen al seen yaay yaa am alal mm. seen baay yaa am alal bu ko arab waxee mooy kan mooy ku ñu sellal ku sell ki koo xam ne dañ ko sellal ay tilim mooy turandoom yonent bi mooy a mooy turandoom sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñëwee fii fóot xol delloo waat ñëpp si yàlla jaadu na mbooloo mi rëcc loo hmm. wutu ji ko ndax ak callate la ñuy wër hmm. ndax mbaax la ñuy wër ndax xéewal la ñuy wër ndax tedd nga la ñuy wër ndax lu ñuy wër mooy loo xamante ni day nekk seen teraanga àdduna ñuy wër mooy loo xamante ni day nekk seen teraanga àdduna ludul dul yàlla mënu ko vraiment vraiment lu lii lu dul njabootu yàlla mënu ko lu dul lii lu dul njabootu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënu ko hmm. moo tax jubboo sa borom rek moom war xaaj njaga hmm, hmm, nee na nee naa la sànq Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bàyyi fi ay milliards bàyyi fi ay immeuble yu bàyyi moo gën loolu fuuf mooy barkete mooy lii ci noppi nañoo gis Cheikhul Khadim radiyallahu anhu suñu ay gët sañ doon gis mais tey mu ngi nii toog sëñ Muntaqa moo ko fi toogal ku si nekk jëral na maa ngi mel lu luy min sani yaatil wa daaxal min sani badru alayna min sani yaatil wa daaxal baaduhum li baadin yawma aduwwun illa al muttaqin ñi àndoon tey rek tax rek tax subhanahu wa taala rek tax ëllëg ëllëg yowmal xiyaam ñooy ànd di lëngoo di dem di dox li nga xamante moom moo di seen soxla di dox itam li nga xamante moom moo di seen seen seen seen seen yitte uh-huh. kon loolu dafa nekk xaaj njoga uh-huh. loo xamante nii jullit bu nekk war nga si bàyyi xel uh-huh. waaye itam ku nekk itam war nga booy sopp soppal ku baax booy sopp soppal ku yiw booy sopp soppal koo xamante ne nii subhanahu wa taala ndax boo ko deful rek sànn nga sa li nga xamante ni moom moo di sa sa sa sa sa cofeel boo ko deful rek moom moo di sa mbëgg li nga moom nga moom nga moom jagaga ah, ah. li ma la wax sànq moo am solo mm-hmm. nit booy bëgg bëggal yàlla ku jër a mm-hmm. bëggee yàlla rek yàlla yi yàlla bëgg la ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne almaru ma man ahabba fal yandur ahadukum soppal koo xamante ne nii ëllëg yéenay ànd nee na kon ku nekk na ngay xool ki nga xam ne moom nga sopp xool ku ne ki nga xamante ni moom ngay àndal xool itam ku si nekk ki nga xamante ni moom ngay lëngool gis nga tey nii ndakaaru mii tey xam nga lii waaw xool sëñ Muntaxa si biir kees gi ndeysaan xoolal ni muy xoolal mbooloo mi bëtu yërmande bi xoolal bëtu Muntaxa xoolal sëñ Muntaxa a la mu toog. Mhm. li dafa daw yaram. ndeysaan ndeysaan. li yàlla rek moo ko mën. ndeysaan moo tax kilifa. Hmm. wàccee lu nuy kaamil. dëgg xam nga xam nga xam nga luy dellu. mooy ma ngay sax saxel day day day dal waaye bu ñu la nee tawat jaa ngay mm. waaye sëñ Muntaxa bi mu ñaanee rek tawat ji daa kaw. Assane na dañ ak jàmm waaw cofeel gii ñi nag Imam Basir dafa wax ne. bennoo gi nit ñi bennoo. cër yi cër yi. cër yi na ngeen ko joxante ndax yàlla nit ñi ni mu leen. ñoo ñoo ñoo balaa ñëpp na an kay. noonu lay wàcce nit ñi léegi bu Assane Seck yëkkatee benn bouton la ñuy bis di yëkkatee ndoo am solo sooba ñu ko waxee mu def ni ñu ñëpp hmm. ñuy benn kuréel ñu bokk fi ñu jëm hmm. ñi bokk lu ñu gëm li ñu bokk lu ñu bëgg hmm. waaye tey damay yor dara xaaj njaga yor dara ma ne lu baax li day naa jéem a xam fu ko njaga amee ma dem su ma ko fa mënee wuti ma wati ko ndax lu baax al xikmatu dalatul mu'min lu baax jullit moo ko moom aynama axasaha aynama wajadaha axasaha xam nga xam nga nag alaaji li li muy wax noonu lu am solo la mm. parce que waruñu maanaam euh, mm. penko bi mm. li ne ci jumaa ji yëpp bu ñu leen nee ñëw leen ci penko bi dañuy dañ mbir mi dina doy waar day metti waaw bu ñëpp màbbee ñëw ci penko bi moom kenn waru koo wax day metti mbaa bunt am nañ koy def nga xam da ngay romb rek génn yow dem sa yoon waaw da ngay romb waaw da ngay romb rek dem ñëw leen ci penko bi ñëpp fi. loolu moom dëgg dinañ sonal sécurité bi gis nga ko mbooloo maa ngi noonu di di di. non non. organisation bi mooy. Mm-hmm. sëriñ bi bu toogee. Mm-hmm. mbedd mi yaatu na. Mm-hmm. nañu bàyyi nañu romb na nit ñi romb rek. sëñ Jili yow itam jege si. bàyyi la xam naa ni damay noppalu ndax son. naa nag <laughs> macha allah euh, alaaji man damay noppalu bàyyi leen xam nga 9h ba léegi te ndigli fi ne ma ngi commencé di ma wan loo xam ne maara day gis nga nit ñaa ngi màbb di dugg ci biir lii tam lii tam lii tam ah kon kon ñi nekk fii ku romb da war a génn jumaa ji. wallaay dëgg la waa Babou Salam noonu lay demee adduna yëpp a fay daje waaye ku romb da ngay génn dem. doo fa na waaw kay tabarkalla comme sëñ Mamor. Mm. ma bàyyi la ak kaddu bi. sëñ Mamor jërëjëf euh, Oustaz Ndiaga. Mm. Oustaz Assane. Mm-hmm. ñu ngi leen di ndokkeel. ñu ngi la kay delloo rafet bi. Mm. di leen euh, masawu yi tam ci coono yi ñu ngi lay bat euh, ziar bu baax yow itam ay coono tawféex la. wallaay mbégte coono bànneex la. ndax liggéeyal yàlla la Euh, daanaka bis bi lu fi nit jànkonteel ci coono itam euh, daf koy fàttalikoo bis bi nga xam ne euh, moom la suñu borom doon tagg saxaaba ya ndeysaan muy xeex bañ doon xeex ci yoonu yàlla doon leen tagg ci alquran inna laaha sada minal muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yuxaatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waxdan alayhi xaqan ñun nag àgguñu sax ci fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna minal muminina anfusahum wa amwaluhum ji danañ jël sañ suñu alal di ci def jël suñu njaboot di leen dugal ci lislaam waaye yëgguñ ci di ñàkk suñu bakkan te pourtant day tiyaaba ak euh, yool bi nga xam ne moom la saxaaba ya doon am ca lañ doon xeex ci yoonu lislaam mm. ngir lislaam jëm kanam ba tey jii buñ mm. euh, buñ bu ñu taxawee taxawaay boobu yool bu toll ne bañ ca amoon mm. danañ ko ci am rawatina nag euh, liggéeyal yàlla mm-hmm. rawatina ñaqal wàlliyu mm-hmm. rawatina ñaqal nitug yàlla mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa moom fi mu toll nii liggéeyal ko rek te képp ku ko liggéeyal bi yomb waaye sëriñ bi liggéey loola moo jafe. ku gis mbooloo mi nii. nii ñu nangule suñu borom. nii ñu nangule sëriñ Touba. nii xol yi wuyoo sëriñ Touba. raj-raj ji. coono yi finna ji kenn yëgul dara kenn ku nekk benn yëg ya nga am muy bànneex ndax yaa ngi seen sëriñ bi yaa ngi tàllal na loxo bi yaa ngi jàkkaarloo sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha jàkkaarloo ku tedd ki gis ki koy gis rek wallaay dafay tax nit ñi. loxo yaa maa maa ngi yëg loxo yi si biir xol. xol yi xol yi wallaay sax moom xol yi lay jox loxo fi mu toll ndax boo gisee nii nit ñi di yuuxoo. Hmm. boo gisee nii nit ñi di tax hmm. parce que xol yi mooy répondre. dëgg la xol yi mooy tont xol yooyu tontu. du caage ne jëmm yee wax lu jóge si xol si xol rek lay dellu. du caage ne lammiñ ji mooy wax. dëgg la mais xol yi ñooy tontu sëñ bi. wallaay dëgg la nit kiy yuuxu bi muy yuuxu du ko tey. wallaay dëgg la nit kiy daanu bi muy daanu du ko tey. déedéet maanaam fi mu toll nii coono ji ak fitna ji ak tàngoor bi kenn yëgu ko mm. parce que xol yi ñooy wax ak sëriñ bi dëgg la xol yi ñooy gis sëriñ bi sëriñ bi itam xol yi lay waxal léegi nag kon loolu di tekkiwaat rek xuloo bu jumlati la si na aflahu sëñ Tuba wax ne xol yee ma nangul. wallaahi képp koo xam ne sab xol nangul na ma. alhamdulilah seexul xadim nee na texe nga. alhamdulilah texe googu nag boo dikkee ci barab bi dafiy feeñ. Mm-hmm. parce que texe weesuwul. nit ki mm-hmm. am noflaay. Mm-hmm. texe weesuwul. nit ki yëgatul coono yëgatul fitna. malgré yaa ngi ci coono yaa ngi ci lii nag maa ngi koy wax léegi sëñ Abdou Khadir sànq avant sëriñ bi di agsi mhm. ma ne ko dañ koy barkeeloo ca coona ak fitna ba nga xam ne ca la sëñ Tuubaa moom la sëñ Tuubaa doon jànkonteel Allahu akbar ndax lu ñu daj fii seenul pëndub asakay la sëñ Tuubaa dajoon digganteem ak boroomam déedéet déedéet déedéet te ñun seen itam te ñun mhm. attention dañuy sonn ngir jariñu sëñ tubaa da doon sonn ngir jariñe ñaari ñaari njariñ yi bokkul bokkul bokkul ñun dañuy sonn ngir jariñu ndax man bu ma ñëwee oustaz Assane ñëw oustaz Mamour ñëw sëñ Abdou Khadir ñëw oustaz Ndiaga Seck ñëw dañoo ñëw ngir jariñu liggéeyal yàlla mhm. liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal sëriñ Touba ngir lan yàlla mën a laabal suñuy xol dëgg kenn ku nekk bi imam bi di ñaan ba nga tàllalee say loxo yaa ngi dugal say mbiri bopp wallaahi yàlla faj say aajo wallaahi dëgg la jafe-jafe boo doon dund yaa ngi ñaan yàlla mu teggi la ko ci suuf te kenn déggul kon ku ne sa njëriñ la fi indi sëñ Tuubaa nag ba muy jóg di dem njëriñul jaam ñoo ko yëkkati woon ndax amul lenn lu mu doon ittewoo moom ci jëmmi boppam ba tax mu jóg wax sëñ Maam Mor doguma la nee naa sànq Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mhm. ba muy dem mhm. sa bésu samedi ba mhm. si 18 safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar xarajtu yawma sabti saamina achar li xidmatil muxtaar yi li mooy li nga wax ngir jariñ ñu li xidmatil muxtaar yi te liggéey ba bañ ko sa fayee itam ñun la ko andil ñun la ko indil ndax wax nañ i illa ij'al rujuuhi ilaa qawmi saadatana yawma jam'il xalqi niiraana kon ngir ñun la waaye li ci gën a neex muy hmm. ilaa qawmi saadatana kay muy sama dellu texe xeet wi la. waaw kay. waaw comme kay texe waxul sama texe la de. wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna xaadiman. fi daw mi fi daw mi liggéey boobu nag tey. kon moom la moom la ñu moom la ñu ñëw moo ñu andiwaat fii tey. moo ñu indi fii dañoo ñëw ngir jariñu. kon liggéeyal nañu ba teg na si yoon yu àjjana moo andi tey Masaalikul Jinaan. waaw kay tubaab bi di ko wax les itinéraires du paradis. seen oustaz Mamadou mu ngoog wallaahi alxasim. kenn du Serigne Touba loolu euh, nag dafay tegtale ne. oustaz Assane. Mm. liggéeyal yàlla rek am solo. dëgg la waaye gis nga yàlla boo ko liggéeyalee bu lay fay xam nga yéen boroom xam-xam yi jàng ngeen ko. ñun ndongo daara yi man man jaa abil xasanati. falahu xasram saaliha xasram saaliha mooy lan fukki yàlla ñaata la ci ñun. kenn xamul nu ndax benn yàlla xaj na ci ñun. waaw sëñ Mamor doguma la. yàlla ñu taxaw fii xam nga dañ na suuf juróom-ñaar la. <laughs> ñun si benn bi rek lañ taxaw te feesaw ñu ko. te feesaluñ ko te espace bi li ñu taxawul. moo ëpp li ñu taxawee waale kon benn bi yàlla lan la benn asamaan bi mënuñu koo dajal benn suuf bi mënaguñ koo dajal benn géej gi mënaguñ koo dajal jenn jaw ji mënaguñ koo dajal waa benn bi yàlla mooy lan fi mu ne ne ku ne nga gi buuxante pour xool sëñ Muntaxa waaye kenn mënta buuxante pour xool asamaan te nag yàlla képp tax de asamaan si benn la jëmmi yàlla rek sëñ bi it kenn la jëmmi yàlla rek jëm yàlla mooy tawxiid bu maamam wéetaloon yàlla wallaay loolu moo topp gu bu maamam toppoon yàlla. ndax ndax bëgg gu maamam bëggoon borom bi. subhanahu wa taala wallaahi gis nga sëñ maam moom lu waay di jox. Mm-hmm. te joxoo ko yàlla perte na perte na ku wéeru. wéeruwoo si yàlla perte nga ku yaakaar te yaakaaroo si yàlla. perte nga perte nga lii lépp. liggéey bu nangu rek moo ko andi radiyallahu anhu man sanna xayra allahi yuxni aw yadur mm. fa daaka fi daarayni suu kadin wa dur addur wa nafu min arrahmani laysa laysa min albidaani wa suudaani kon mooy firndeel li nga wax mm-hmm. looy jox te joxoo ko yàlla perte nga kuy wéeru te woo ci yàlla perte nga sëñ Tuubaa dafa jël léppam jox ko yàlla ndax nee na lor yàlla ak njariñ yëpp jox ko yàlla moo koy si yàlla lay jóge ku lorewul ku weex joxewul njariñ ku weex joxewul njariñ sëñ Tuubaa ne lépp ci loxoy suñu borom subhaanahu wa taala lay bàyyi ko moo tax nag boo jëlee lépp jox ko sa borom yàlla dafa am ful lay nag ndax sëñ Tuubaa dane woon yàlla li mu yor radiyallahu anhu mayewul déedéet saraxewul déedéet leblewul day jaay day jaay inna allaha ashtara nee na njëgg itam amul am lii dese lii sëñ ko wax de nee na yàlla suñu borom li mu yor nee na mayewul hmm. saraxewul hmm. leblewul hmm. day jaay day jaay te njëgg it amul ma dugal la lii dese lii teg teg yàlla da koy jox sa lépp moo compal la tuuteem nga jariñu ci àddina ak laaxira nga téye sa lépp mu téye léppam nga al àddina ak laaxira yal ci yàlla musal. moo tax mu jihaad ba tey borom bi defal ko lii moom Cheikhul Khadim Oustaz Mamour. te lu mu doon jihaadi. Mm. inni ujaahidu bil ulumi. wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhayminu saay yàlla moo ko seddal. yàlla mi nga xam ne moo ndar képp lépp. yàlla mi yor kattan. yàlla mi yor ay ngëneel di ko joxe. moo jox Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ngëneel gi naan ñu tuddee ko ko les itinéraires du paradis yoon yi nga xam ne mooy jëmal si ajjana yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala képp dong moo xam na mu toll sëñ bu mbay bu RTS mu ngi nii toog dana ñëw ñu ànd ak moom bokk ci commission bi nga xamante ni dem rek ñu ngi koy seetaan ci RTS muy wax di def waxtaan bu am solo ci liggéey bi nga xamante ni ku tedd ki def na ko ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu Mamour yaa ngi tey Masalikul Jinaan boobu ba léegi maa ngi gis sa kanam mu ngi kontaan di leer di bég tey lan nga yëg bi nga ñëwee tey fii si Masalikul Jinaan jërëjëf Oustaz Assane Seck ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàcc waaye di ziar sëñ Mamour di rafetlu kàddu yi nga xamante ni jub na fi mm. defe naa ne lii day wane ne lislaam rek moo amati ndam ndax gis nga sëñ Muntaxa damay wax ne mm. li nga xamante ni Sëriñ Tuubaa def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonk gi mu fonkoon yonent bi sëriñ bi mu am lu kawe ci biir taalibe yi mm. waaye taalibe yi itam ni sëñ Muntaxa def sëñ Tuubaa noonee lañ ko def mm. ndax boo xoolee tey fii nii maanaam ci fajar wala barki dem ba léegi mm. ñu ngi fi tase ngir di ko xaar muy gan gu màgg te gan gan gu màgg giñ ko mën a duppee ganu lislaam la sëñ Muntaxa kàddoom jubul ci nañ ragal yàlla nan jaamu yàlla nañ delluwaat ci yonent bi ragal yàlla na bu ñu ko waxee dafa wax ne waxay suma taqaf ilaahakal ilaahakal ahad hmm. yaqafka min xawfika wa kullun ahad hmm. gis nga nit ki bu ragalee yàlla hmm. lépp lu ragal yàlla ragal ko waaye nit ki bu ñemee yàlla lépp lu ñemee yàlla da koy ñeme kon jàngat bi ma ci am en tant ñu gis réew mi mu xaw a pëccëxoo ci yi nga xamante mi ngi xew moo xam faat gi wala sax ci côté politique mu mel ni Ndakaaru dafa namoon tey l'islam dundee nii li ñuy li ñuy dégg mooy politique wala agression te ñaar xamante ni tey aju nga ci diine lislaam yow li la nga fexee jaamu juwaat yàlla xam na itam mag mën na koo def waaye xale mën na koo def beneen bi itam usaasan ndax defe naa ne jotaay yu mel nii rek ci lañ mën a profité di sensibiliser jeunesse bi ndax gis nañ réseaux sociaux yi li ci ndaw ñi di nekkee am na ci ñoo xam ne ngir jàpp nañ na ngir ñu am alal nuñ ko amee baax na mm-hmm. mën nañoo jël deru jàmbur lu ne ñu yàq ko nit mm-hmm. amaana damay faral di wax ne ñun gëm nañ ne dund am na gëm nañ ne dee am na waaye la ca ginnaaw dee dafa defe naa ne dafa doon loo xamante ne lu mat a sóoraale la mm. l'islam nag xeebul ni ko l'islam ni ko Sénégal jàppee mm. ndax gis nañ ndaw ñi fii ay ndaw rek ñoo fi nekk te ñëpp ba mm. bàyyi seen yitte yëpp tey ji bu ko tiwaawoon woote woon nii lay demee kon l'islam defe naa ne am na ndam lu rëy ci biir dëkk bii di Sénégal kon ñu ngi soññaat ndaw ñi di ñaaxaat ndaw ñi di leen wax ne fii ñu teg seen tànk foofu la dañuy xool leen jëmale kanam di xool leen jëmale l'islam ndax dund gi dafa gàtt mm-hmm. àdduna kenn du fi dund téeméeri at ak juróom benn fukk buñ ko xaymaa mënoo ko fee dund waaw mhm. ah, te defe naa ne bu ñu xaajee sunu dund gi ñun ñëpp buñ ko xaajee ñeenti xaaj mhm. benn xaaj bi dund nañ ko kon li fi des bariwul mhm. lan moo fi des rafetal sunu digganteeg sunu morom rafetal sunu digganteeg sunu borom waaye itam xool nan la ñuy mën a dundee te jéem a sax di fàggu ci li nga xamante ne lu leew la ci ndaw na ci loolu la war a tënku waaye waruñ koo xool ci violence ko fa fekk wala koy xool ci leneen loo xamante ne méngawut ak yaru sunu mag ñi baax ñi nga xamante ne ñi ngi ci dëkk bi di lislaam loolee nag message la boo xamante ni lu ma dencoon la ndax ku di nga jëriñu ni ci sëñ sëñ Sidi Muxtaar doon waxee waaw ku yarawul doo yor dara mm. waaye itam ku tegginawul doo mën a tegg dara sëñ Tuubaa ne wax wa fi daareni mm. xayru kanzi wa xayru maxtaza mm. zo azzi mu ne lépp lu waaye di fàggu ci àdduna ak alaxira yar ak teggin moo ca moo ko ëpp doole daal di waxaat ne yow nit fexeel ba ni bëggee nit ñi nekkee ak yow del nekkee noonu ak ñi bokkun ma an naa ne moom sëriñ bi jàngale na lépp tënk bi la ko delloo mm. te Serigne Touba moomee nag moo mat sëkk mm. ndax moo wax ne xafistuma siina ani dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri damaa watt loo xam ne newul ci ay téere kon yow doomu aadama yow jullit yow murit bul tayal mukk ci di ma kon nag ni may soññee sama bopp noonu laay soññee mboolem jeunesse bi nan farluwaat ci jaamu yàlla farluwaat ci liggéeyal Serigne Touba saasan Mamour bu mm-hmm. télévision Futur Média ñoo ko déggandoo Oustaz Mamor mm-hmm. tey li gën a yéeme maa ay ndaw ñoo feese fii sama xel dem na si Cheikh Mansour Diouf bu yoof di jàmbaar di taalibe sëñ mm. Fallou Chouaïbou jokk si moom teewal mm. xalif général des Mourides mm. fële ca diggante yoof mm-hmm. Ngor Okam ak Cambérène moom itam mm-hmm. tàggat ndaw ñi di leen teg ci siraatal mustaqim di leen jàngal itam di leen gindi di leen woon njàngaram Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu mm-hmm. Cheikh Mansour gisuma fa mu nekk waaye xam naa ne xolam sedd na xam naa ne bëgg na moom dafa jeex si Serigne Mountakha bu wax si moom sax da ngay gis nii foyer bët yi taa daf ko bëgg daf daf bëgg ba jeex mhm. kon Cheikh Mansour Diouf ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax a baax ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér sëñ Mamor mhm. xoolal mbooloo mi xale yi euh, tey mhm. wuyuse bi ñu wuyuse dëgg la ban ban ban sentiment la la jox dëgg la euh, dafa am lu ustaas wax léegi mooy buy la yàlla dimbalee nga ragal yàlla lu ragal yàlla dalay ragal lu ñeme yàlla daf lay ragal ndax sëñ Tuubaa da ko waxoon xaysuma xifta ilaahakal ahad waaw yaxifka min xawfikahu kullal ahad sëñ Tuubaa dane woon da koo tomboon mm-hmm. ci ay wolof mm-hmm. ne boo bëggee mucc fii ci àddina ak fa ñu jëm nee na fexeel ba juróom-ñeent yi nga dajale ko Oustaz Assane juróom-ñeent ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi ku bon bàyyi fu bon bàyyi bon loo xamul boo ko wax loo mënul boo ko def loo moomul nga maandu ci sëñ na juróom-ñeent yi nee na ku ko sàmmanteel da nga mucc àddina ak àllaaxira ndax dégg nga ma yow rek laay déglu ragal yàlla ragal yàlla muy taqwa ragal ku ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi ku bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon bàyyi fu bon bàyyi ñu bon bàyyi ñu loo xamul loo ko wax ko wax loo mënul loo mënul bu ko def bu ko loo moomul loo moomul nga maandu ci sama xel dem na si yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi istaxilu ba mujjee fastaxilu bil hifsi wa tilaawa sa saxaawa wattani boo majaale sa saxaawa jooju mhm. di nga ko mën a méngaleeg ragal ñu ragalul yàlla bàyyi ñu bon ak bàyyi fu bon bàyyi ko bon bàyyi fu bon bàyyi ñu bon mooy majaali wattani boo majaale sa saxaawa mhm. ndax suñu borom subhaanahu wa taala daf ñu ko moytuloo ci sóoratu xujuraat bu ma juumul mhm. mooy moytu leen jotaay yi nga xam ne jotaay yi way texee di la na ngeen ko moytu na ngeen ko teet nangeen ko daw mooy yi nga xam ne dañuy dajaloo di jëw di tudd nit fu mu nekkul suñu borom ne na ngeen moytu loolu moom la sëñ Touba tëggaat ci xasida gi di tasaw di sixaar waaye moom la tëggaat itam ci ay tombi wolof ne boo bëggee mucc fexeel ba sàmmonte ak juróom-ñeent yi. gis nga lii ci kanam sëñ Mountakha. Hmm. bu mu jaaxal kenn. déedéet. sëñ Touba dafa waxoon lu am solo. mu di. dane woon. Hmm. nit ñi boo bëggee ànd ak ñoom. Hmm. dangay ngay ànd ak ñoom ci ñaari jikko. ñaari jikko. wala ñett boo leen lu bon. lu ñu am yéene leen ko te loo am bokkoo ñoom. moom la ñuy wutit sëñ Muntaxa ci loolu la ne te xam naa ni bu ñu toppee la waxaloon boppam ci yow nee na du ma tooñ kenn ku ma tooñ jéggal naa la te lu ma am yéene naa la ko nit ñi moom li feek soxlaaloo leen dara Oustaz Assane li ñu am yéene nga leen ko te ku la ca tooñ nga jéggal ko sëñ Touba na jàppal ni cër bu nekk mën nga ko am ci suñu borom te loolu mooy taxam nit ñi ndax àdduna kaw suuf a fi nekk kaw suuf ñaara fi nekk mooy kiy wut ak ki ñuy wut ci moom ñaar ñëpp nag teraanga tëral na leen ndax Cheikh Mamadou Moustapha bi fi ko tedd ki di jóge 1927 da ko waxoon lu am solo. Hmm. da nekkoon ko woon Mouhamadou Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko doomu aadama ñu bëgg ñoo yóbbu ci Serigne Touba rek a tax may ñu lii. moo tax rek nga may ñu lii ci sa jëmm ju tedd ji ngir ñu jàkkaarloog yow. taalibe yi ak mbokk jullit yi ak réew mi sax gis la rek rek la ñu bëgg. loolu nag Mbàkke da ngaa gisul lu dul sëriñ bi te sëriñ bi boo gisul lu dul sëriñ bi ñëpp yow rek lañuy gis jàngal nga ñu taalibe jàngal nga ñu ni ñuy toppe sëriñ Touba ndax mënuñu koo ñàkk noo ñàkk sëriñ bi te xëfiix bi ñu defal nag ba dugal ñu ci boppam Mbàkke day ak baaxam rek waaye du suñu mat du suñu xam du suñu doole day ak mbaaxam bëgg ñoo yóbbu rek bëgg ñoo dimbali ndax moom dimbalam li mu yor am ko ëpp ndax boo boolee ñi ne ci àddina ña dem ak ñi ne ca kaw li ko san borom jox moom rek la ko jox musu koo jox kenn ndax lii musu la xew fenn ci moom rek la xew loolu nag mun ñoo sant ba dàpp li ñu bëgg a wax wala li ne ci suñu xol waaye yow sa jëmm ju tedd ji ku ko xol Mbàkke war a dolli ay jéegoom ndax lépp tabarkaay la yaa ñu ci fuuxa nga jógee jóguñu te tekkegoo sa laxasaay gi ku xool mbooloo mii ni mu mel ak dugg bi fii ni mu jafe sëriñ Touba jaral la ko ngir ñu namp ci yow ngëm sëriñ Touba ak liggéeyal Serigne Touba mënuñu laa fay man de mënuma laa fay. ndax man sëriñ bi rek laay wër moom laa bëgg te def naa ni ma mel moom la ñëpp mel te jàppale nga ci dimbali nga ñu. nga la mbàkka bu ñu ba jàppale ñu kat liggéey bi kat mbàkke taalibe yëpp nee nañu nga nefi rek ànd ak ñun rek dimbali ñu ci kattanu suñu boroom mbàkke ñoo ngi ko yelwaan sëriñ bi di la ko yelwaan it nga xam ne ñi yow dara yitteelu la dara yitteelu la lu dul sëriñ Tuubaa gam-gam la ko kenn ci ñu jëkk ñeeg ñu mujj ñi gisoo kenn koo xam ni kii mën nga koo weccoo sëriñ Touba loolu nag Mbàkke moom la la nit ñi faye ndax yow xam nga ndax sëriñ bi du ku nekk koy toog ci jotaayam bi waaye nii ñu la xame ba ñu fi ñëwagul it ñi ñu jiitu woon nee nañu nii lañ la xame bëgg sëriñ bi ne ci sëriñ bi rek moo tax yow rek ñu mën a yóbbu ak sa njaboot gu tedd gii nga àndal ñuy say rakk ñu bëgg Mbàkke nga dimbali ñu ñoo ngi la ko yalwaan di ko yalwaan Serigne Touba dimbali ñu rek ànd ak ñun ndax looloo des ci liggéey bi. nga la Mbàkke buñ lay gis dañuy gën a sawar buñ lay gis dañuy gën a pastéefu buñ lay gis dootuñu gis dara lu dul liggéeyal Serigne Touba tey yow foofu rek nga ne nañ ànd rek ngay wax liggéeyal Serigne Touba rek nañ ci ne bu dara tegu tegu ci suuf ñuy dem ba ca kanam. moo tax sa naal yu naal yii yu rëy yii nga naal ko Mbàkke yàlla na ko yeggale yàlla na ko yeggale ci sa sago te ñu ànd ko ak Mbàkke miin na la suñu sëriñ bu baax ba suñu wéyjur wu baax ba suñu yaakaar Cheikh Saalihu moo ma ni dinaa yebal a Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu ñëw teg si xeer wu njëkk wa yàlla def li mu def mu defar plan ba waaye moom amoon na gis ci yow Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw ànd ak yow fii nga taxawu ko dimbali ko dimbali ñëpp ndaxte yow Serigne Touba ngay gis bu ko dara yàqu bu ko dara teg a suuf mu ànd ak yow ñëw fii ñu teg xeer wa noppi woo noppi woo ba Cheikh Sidil Mokhtar ñëw sa xarit ba sa sa sa sa sa sa àndandoo ba sa sëriñ ba sa lépp ni la ni la mu noonu rek yaay sama jëwriñ nga jël sa jëmm ju tedd ji ni weer wu ne dinaa ko ñëw fii taxawu liggéey ba ca gas ba ca sëkk ba ba mu mel ni mu mel yàlla dogal la mu dogal ca moom mu dem àjjana nga téye liggéey bi yeggale ko def ci li nga ci def muy ay milliards yu bare bare bare wóor na Ahmadul Bachir mi ba pare it di ñu ci soññ di ñëw di seet si ba yàlla tagal nga ubbi ko te muy bés boo xam ni aw ñam la woo xam ne bañ ko lekkee ba léegi reesagut waaye sa jëmu ci tedd ji nga ñu baaxee ñëw fii Mbàkke wecc na lu ne lii Mbàkke jomb la waaye dimbali ñu yàlla na yàgg de dimbali ñu rek ci barkeb Sëriñ Tuubaa addiya yi nag taalibe yi dañoo bëggoon a rang di joxe seeni addiya waaye man sa jaam-jaamaat bii nga xam ni loolu rek laa bëgg doon man bëgguma doon dara lu dul taalibeb sëriñ Tuubaa ak jaamub sëriñ Tuubaa bëgguma doon dara lu waaye am na ko jël te ba ma ma doon taalibeb sëriñ Tuubaa ndax moom laa xam moom la ma sama waajur xamal moom laa xam ci laa nekk duma ko civilisé du ma ko complexé duma ko dara sëriñ Tuubaa rek laa xam Mbàkke te it ma cee dimbali dama ma cee jàppale dimbali ma ci mënuma la fay liggéey bii bu ñu demee ba di ma ci tudd yaa ma ci jàppale dimbali ma ci moo taxoon ma ànd ak xale yi ñoo nekk nii ma xam ni taalibe yi bëgg nañoo siyaar si bëgg nañoo egg si waaye mënuñu ko maa ngi jégalu sax bu may tëdd ab lum dara taxut nag Mbàkke lu dul sant ci Serigne Touba xam ni nu ma mel moom la ak lu ma am moom la te it li may def sax dama koy poos rek ndax lim ma jox Mbàkke joxuma la ko waaye ñaanal ma rek man de Lamine mii ñii toog nii bu daga doon tey jii ñu tër ci kenn rendi ko na maam Cheikh Anta defoon dinaa ko def barke Serigne Touba wala bala ma leen a rendi sax rendi sama bopp ndax moo ma gënal loolu lépp nag sante ko sëriñ Touba sama ye jii nag maa la ko jox ci sa liggéey yu baax yii nga nekke bari wut xeeb naa ko. ndax dama doon sant ci ubbite ga ma ni damay santaat tey ñaan nga ñëwaat mbake ma santati dimbali ma ngir jëmi Serigne Touba ak mbaaxug yonente bi nga dellu waat nekk fi rek ñeenti walis yi bu ci ne ñaar téeméeri million la def ak juróom fukk muy un milliard maa la ko siyaaree te di ko xeeb xeeb ko lool bëgg nga rek nga dimbali ma boo dellu seetee sama borom dimbali bama man lu ko ëpp ak it di la jox sama bopp te bàyyiwuma ci dara waaw ah waaw waaw ana di gën lépp sëriñ Tuubaa tey ak ëllëg jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Tuubaa dégg ngeen Cheikh Amadou Mountakha jërëjëf sëriñ Tuubaa day na Mbakke Mbakke jar nga lu ko ëpp de Mbakke jar nga lu ko ëpp de lépp Serigne Touba nga koy def jar nga lu ko ëpp de waaw waaw Cheikh Madou Bachir Mbacke jar nga lu ko jërëjëf jërëjëfati Mbacke jërëjëf. dàkk ci sant ko sax dàkk ci nekkal ko ngir boroomam moom doon jaamu ak yonent ba mu doon topp daal sax dàkk ci sant ko sax dàkk ci liggéeyal ko suñu dund gi yëpp fu mu yem mu tàmbalee fa gi jax ko tey ak ëllëg ndax doon ñëw liñ ko doon barkeeloo loolu da ko ber li fi ñëw doon ko def ci ger gi te mu des daf ko ko mën nu mu toll waaw waaw ndax président tamit yebale na fi lii tànt bi yëpp moo ñu ko defal ak Antoine. moom it indi na fi lu lu bari ma nag yaa nga fële mat nañu téeméer ak gis yëg lépp lépp rek lépp yow rek dara jeexut dara jeexut. mi nga am na am na mbuus mu ci ne dinaa ko dinaa ko ko texantale. jërëjëf. jërëjëf Mbacke. waaw. ay Mbacke. Mbakke noo ngi ñaan nga yàgg téwér jar jar na ko de yaari guddi yi ndakaaroom yi kenn la li fay na ko de yaari guddi yi ndakaar wi kenn la li fay na ko de Mbakke noo ngi ñaan nga yàgg téwér de wallaay yaari guddi yi ndakaar wi kenn la li fay na ko dara naqareetunu jërëjëf Mbakke sëriñ bi mu ne na tàllal ñu ñaan. waaw kon ñu tàllal kon euh, dégg ngeen. dégg ngeen ka dégg ngeen kàddu yi am solo. amiin Mbakke euh, yëkkati ak addiya gi nga xam ne joxe ne ko sëriñ bi delloo waat ko ci biir jumaa ji sëñ Maam Mor la nga doon wax sànq rek. naan ñoom néegu sunu borom rek a leen ñor. dëgg la ñoom yàlla rek liggéeyu sunu borom rek a leen yàlla rek a leen ñor. lii daanaka dafay. na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal Amin Mbakke Amin Amin Mbakke Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin. mu ngoog. amiin loolu lañ leen fi jëlee woon. sëñ Abdou Khadir. gis ngeen tey. Eh, dafay ah, dafay symboliser. Eh, juróomi millions yi sëñ Touba dajale woon. 1925. Eh, ne dañ ko ko defal ci jumaa ñu toog ba jëmmi jamono. sëñ Modou Moustapha dajalewaat aldi xaalis bu takku. def ko ci juma. sëriñ Fallou def ko. sëñ Abdoulaye def ko. waaye ma ñëw ci sëriñ Saliou. mi yëkkati woon ñaata milliards ne nañ ko ko defal ci juma. loolu liñ naan euh, la sëñ Tuubaa doon wax naan yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga defal ma sama ñooñ mm-hmm. samay sët mm-hmm. ñu doon ñoo xam ne dañuy yeesal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duriyatan tayibatan tujaddidu nahjanabi mustafa taytahidu wa hab lana duriyatan tudimu alhamala saalih alhamala saalih yaa xadim ay waay lee mën naa ñàkk de yéeg bee mën naa ñàkk de ñu jël ñu jël mm-hmm. jox la ko ci benn jataay nga yëkkatiwaat un milliard boobu ne nañ la ko defal ci jumaa te ko xam milliard ci jamono ji lam mën a jar hmm, lam man ci jamono fam toll ci jamono nga ne nañ la ko defal ci 37 milliards sembu liggéey boo xam ne 37 milliards la ku la ci fekk nga dem ku la ci fekk te yaa ngi yéen itam dox mi ñëw Touba te sëñ Touba woon hmm. ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem. Hmm. nee na saa soo gisoo gis mbooloo ci sa ginnaaw loola nag moo feeñ ci Seex Mamadu Muntaxa mii. lii mu jëfit dafa sargalaat lislaam waaye wanaan la itam ñi nga xam ne dañuy jàpp ne alal wala xaalis wala koom-koom wala riche moo yore adduna déedéet ndekete adduna bi xol bu set bu sell bu rafet loolu moo yor adduna moo tax adduna di dox ba tey bu fi amatuloon nekk adduna bi daaf mm-hmm. loolu la sëñ Mountakha wane mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla mu doon lu am solo mm-hmm. yàlla na ko yàgg fee teew amiin amiin amiin yàgg koo def amiin te lii yaakaar naa leçon la bopp danañ ci mm-hmm. gën a tiire ci jullit yëpp mm-hmm. ñu xam ne ndekete alal dañ ko war a delloo ci yoonu yàlla te yàlla loolu la tagge woon jullit yi mm-hmm. ñoom dañuy jël seen alal di ko jeexal ci yoonu yàlla la leen cee yàlla di fayee nag mooy aljana aljana wallaay wallaay jërëjëf sëñ Mamour sëñ Abibou sëñ Abibou Mbaye RTS waaye sëñ Abibou bu diwaanu Masalikul Jinaan maanaam diiru chantier bi ñoo fi ko di nekkandoo bi ñu taxawalee euh, cellule communication itam ñu ànd ak moom. maa ngi fàttaliku Cheikh Mouhamed Bachir moom Cheikh Abdou Khadir mii ànd ak sëriñ bi ba ñuy woo ca Touba ak sunu jëwriñ sëñ Alioune Thioune ni communication bi yéen ñi yéen a nekk ci bopp bi. boobaak léegi itam tekk woo sa laxasaay donte que kilifa nga nag eh, RTS kon ñu déglu nga nga nga jàngatal nu jàngatal nu jataay bii mbooloo mi ak. ba ñuy nekk sunu pant bi ñu defoon fii waaw daan fa dajaloo di liggéey jumaa ji ak tey ji jërëjëf sëñ Jili mi ngi may laaj loo xamante ni bii xam na ko sëñ Mamour ñu ngi leen di ziar sëñ Assane ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp dëgg yàlla di leen bëgg lool ci liggéey bu am solo bi ngeen di liggéey mm-hmm. uh, barab bi xat na jotaay bi xat na waaye nag uh, mbir a ngi nii moo xamante ni mm-hmm. yaakaar naa uh, Serigne Mountakha mm-hmm. yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér jëf ji El Hadj yi fay jëf daf koo jox ñeenti ñeenti gaal. gaal gu ne mu ni ko euh, deux cent cinquante millions moo ci nekk. Mhm. ñeenti gaal nag sëñ Tuubaa moo doon numéro 4. <laughs> ñeenti gaal. wallaay sëñ moo doon numéro 4. wallaay wallaay 4 fois 2 mooy 8 huitième xalif. wallaay est-ce que. kon loolu moom dafa di lu yéeme loo xamante ni. Euh, jar na àdduna sépp xam ko. te te jumaa ji dafa dafa bokk ci euh, li jëmal ñeenti bantam ya. mu waaw jumaa njaareem mhm. di benn bant mhm. juma Touba di benn bant mhm. Masaalikul Jinaan di benn bant maa yomba ga ñu demoon itam juma jàng ci Libreville di benn bant muy ñeenti bant mi kon chiffre 4 ñëwaat na foofu <laughs> foofu fépp nga dem fa sa njiili euh, dem Gabon euh, dem fa ànd fa ak sëñ Euh, ànd fa sëñ Mamor liggéey fa liggéey bu am solo boo xamante ne bi keroog ba ñu àggee di war a embarqué pour dem Mayumba dañ ne avion bi mënta dem ab sénégalais ñëw nekk chef d'escale ba daal ni compagnie bi ma yor mm-hmm. xamuñu quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent de sécurité cent pour cent lañ xam mënuñoo dem Mayumba ñun ñëpp ñu débarqué embarqué woon waaye débarqué kon euh, jotaay bi nga jàng fa ci aéroport bi lii laa bil <laughs> boo xam ne yóbbu na ma fu sori saa yu ñu fa euh, saa yu suñu xel nekkee rek. dañuy bëgg a jàng xas dëgg waaye ci ji li jotaay bi. Mhm. damay dox di ñëw. Mhm. ma xool ma ni euh, Dakar. s'est mhm. transformé en Touba. maanaam tey jii néew ñu kenn bu fi tox déedéet. ñu kenn bu fi jëfandikoo lenn lu ñuy tere Touba te moonte kenn. defu ko fi kenn defu ko fi wallaay. kon ah. Serigne Mountakha ñëwam bii. dafay firndeel rek ni. moom euh, Cheikhu bi wér bu wér la. waaw ndax. tey jii tegtal na ni moom mooy Seexul Xaddim bu wér ndax ñëwuñu kenn bu fi def lu nu ko su nakasul noonu déedéet waaye ñëpp jël nañ seen tànk teg ko ci mhm. Touba mel na ni mhm. maanaam suufu Touba lañ xëcc rek indi ko mhm. Ndakaaru ak ak ak sëñ bi ni mu daan doxaleek alal luñ ko mës a jox mu ni tegal fii li ñu mësoon xam ne ci moom la dajaleel boppam ñaar fukk ak juróom-ñette sëñ Assane muy li mu arafu tuubaa la mu doon dajalu ngir lan jumaa Touba. bi mu fiy jógee mat na juróomi million. ñu gis acte yi nga xam ni mm-hmm. moom la sëñ bi def mm-hmm. léegi. Mm-hmm. ni jëwriñ. waaw jumaa ji des na ay liggéey. am na yeneen sémb yu fi am. milliard bi kon. waaw loolu dafa fekk sëñ ji. nga joxoon jumaa ji sànq ni ma. abiwu nañu àggale suñu jumaa ji yenn finition yi. wallaay wallaay. ba caag man la waaw sëñ Mbacke yu de. waaw jëw ni dana ko yeggale wala xam naa est-ce que bu wutal ab milliard dugal ko ci par sëñ bala ñuy daanu suñu kaat di daanu si mun nañ ko dugal koppar yi milliard bi ci jumaa ji lu yéeme la wallaay kon maanaam suñu xol yi wallaay nekkoon di xur-xur moom lañ sëñ mam sa sa sa sëñ mun taxaa euh, tontu wallaay kon ñu gën a xam ni sëriñ mm. Bamba mm-hmm. keroog bi sëñ ab laaj di laaj milliard mm. dënd yi rëccoon na ñu naan xamul milliard te tey jii taalibe yi nekk bi bu ñu dajale woon yor mm. mat milliard ci lu wér bi déedéet wallaay wallaay waxtu yu daal di yëkkati milliard jox sëriñ bi ñëpp am nañ ci yéene ay kees la ñu teg fii mais nit ñaa ngi sànni xaalis man naa ñuy sànni xaalis. ñu ngi kon kon lii lay wane rek Serigne Touba. Mhm. suñu borom fay na ko. Mhm. fay na ko la mu def maanaam guddi ñaari guddi yu ndakaaru yu metti yooya mm. yu tar yooya suñu borom fay na ko ko tey jii de wallaahi gis ñëw si mun taxaagi muy loo xamante ni bii wax dëgg yàlla wéttaliku na lool wéttaliku na wér a wér waaw tey suufu ndakaaru mm. tamit bëggati na waaw ci bi ñu tegee jumaa ji ci kawam parce que alaaji baara waxoon sëñ Muntaxa waxoon sëñ Muntaxa ko waxoon maanaam suuf si xooma lu sëñ Tuubaa suuf si yóbbante na ma ci yéen waaw waaw nee na naqar ba amoon ci bin fi indee sëñ Tuubaa di nga fi sonal ba mu naan isa sakatu saalikal mabita nee na tey jii naqar woowu soppi na mbégte bi jumaa ji tegoo ci kaw suufu Ndakaar sëñ Asan macha allah jërëjëf sëñ Jili sëñ Habibu mm-hmm. euh, lii xew fii tey dafa yéeme mm-hmm. dafa daw yaram maa ngi koy wax sànq oustaz Ndiaga mu ne ko àndax nitu yàlla rek moo wóor mm-hmm. ndax sëñ Muntaxa fa la mu toogoon ci kees gi bu yëkkee loxo loxo yi mel ni si biir xol yi la ko dugal ndax ku nekk tey ku fi teew ak ñi topp télévision Futurs Médias yëpp mm. xam nañ ne mbégte bi mu am moom mm. ak li mu yëg si xolam rek moom la sotti si biir xol yi nga xamante ni ñoo fi teew Habib wax na ko léegi dafa am loo xam ne yàlla moo siy dugal loxoom tey lépp lu ñuy tere Touba waxuñu kenn tey bu ko fi def mais ku nekk am nga tey sa ruux lu mu yëg ba sax xel sax demul ci loolu ndax jëmm ji nga xamante ni tey moom moo fi teew wax naa la ko sànq Cheikhul Khadim radiallahu taala andu kenn rek moo ko xam muy suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moom moo ko bind waaye tey li mu am yëpp li ko may mooy juboo ak boromam kuy ànd àndal ak ku jar a àndal kuy ànd àndal kuy am ndam kuy ànd àndal koo xamante ni jubboo na ak borom bi subhaanahu wa taala seen tey ñi fi nekk buñ dee million wu nit jàppal ne neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille yi ay xale lañu ay jeunes lañu ñoo xamante ni seen digg ndaw la ñu toll ku su nekk lenn rek nga bëgg fexe ba teg seen sëñ Muntaxa loxo rek mu teg la loxo boo ko man teg teg loxo tamit mu teg la bët nga teg ko bët ba noppi itam li nga xamante ni yow yaa ko ñaq mu law la domm tànk joxoo ko ko rek doo am jàmm doo am lo neex doo am mbégte si biir xol loolu li koy maye nag mooy nekk ci li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala digle sànq maa ngi koy wax si jamono démb rek maa ngi xool bu vidéo benn bu sëñ Mountakha muy wax naan di tuurante ay deret di reyante ndax alalu àdduna jaru ko te wane na ko ñu yëkki milliard milliard mën na lu na jamono ji mu delloowaat ko si néegu yàlla def na lu maamam bëggoon def na lu maamam mënoon def na lu maamam doon digle ndax Cheikhul Khadim comme niñ ko jàngalee léegi radiyallahu taala anhu lu waay mas a yëkki mu ne la tegal foofu dara ñoru ko woon lu dul néegi yàlla yi dara ñu ko woon lu dul fu ñuy tuddee borom bi subhanahu wa taala waaye itam dara ñoru ko woon lu dul fu mu nekk di bakk di kañ borom bi subhanahu wa taala di ko jaare si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ndam lii si lan na si ay ndamam yi ko yàlla defalagul te des na yeneen mu ngi si kanam ñëwagul kon tey ñëpp am mbégte te ñëpp kontaan dinaay faral di wax ne saa yu ñu ku yeewu teg sa tànk suuf war nga wax jërëjëf Cheikhul Khadim xam nga lu tax radiyallahu anhu nit dana toll jamono du xinti kenn ku dul boppam ak nafsoom ak fi nga xamante da ñaata yoon la yónnee ngir mën a am ay ay ay papier yu mu bindee ngir rek tagg kañ bàkk Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu yëpp lenn rek la si sàkk woon mooy fexe ba làq ngërëmal boromam moo tax tey làq na ko moo tax xasaayid yi faaqat xasaayidal kiram képp yàlla ko defal moom Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu kon sëñ Muntaxa daal ñun lenn rek la ñuy ñaan sëñ jili bu mu fiy géej ndax lii moom dafa sedd xol lool sëñ Habib neex na lool lool lool lool di wax na daal lépp luñ fi ñaan tey yàlla na ko yàlla nangu te am nañ si yàqin ndax nee naa sànq si journal bi sëñ Mountakha ñëw na andil ñu un climat un climat clément waaw et doux kon comme ni mu mel rek noonu la climat bi mel sëñ ji mooy mbégte mi mooy mbégte mi sëñ Assane eh, sëñ baa ngi nii nag di génn yéen ngi koy gis ci caméra yi waaye xam ngeen ni eh, sëñ bi ba tey nganu ndakaaru la dana fi nekk eh, tey jii nekk fi suba ak gannaaw suba incha allah ba tax na commission culturelle bi nga xam ni sëñ ba tax na commission culturelle bi nga xam ne sëñ Abibou Mbaye mii ci la bokk mhm. ñun ñii ñu bokk ci bokk ci commission itam communication bi mhm. am na programme boo xam ne sëñ Assane mhm. euh, tey jii